Eh, eh, eh, waaye alaaji foo damay xëy damay xëy lan la. ah yoo xanaa balaa nga xëy joxe dépense. ah bii ci guddi joxuma la dépense may tëdd. yow alaaji kañ nga naax ba ma joxe dépense di ko xam. yee démb bi ma jëlee tata bi booy bi ma ni xuj ji naan ma dangaa niru sam papa tafu xaalis ba yow eh yow alaaji yow nan nga yore ay oto yor say taxi ngay xoole ba dugg ci tata ñu lay tafu alaaji loolu yéen na maanaa kuf ma la mënu am dara def salaam ñu rëy bi xoolal xale bi ma yeexee léegi mu dem xam naa fi fi mu wàcc du ma réer bàyyi ma tuuti rek ma ñëw alaaji yow alaaji yow waxal de <laughs> man xaw ma lii nay la xaw ma lii dof la ndax koo xamante ne loxo bi fi la daggee fii joxe ak ku ko rey la yemale dépense moom waxaale wu ko li yoon la tamit. waa ma ni xoolal këyitu xuloo baaxul ci ay ñaar ñu bokk wërsëg xoolal reetaanal nag. lu may reete gisaguma li may jox looy togg man de teg si loxo dara. ceeb bu jën bu fëtt tarek ndax man lébu laa. ay waay teel. eh eh kaay eh alaaji ma ne fii ma ne nga romb ma nii. man xaalis laa soxla soxla may kay téyel téyel xoolal bon la boo demee ci Abdou Karim dana la jox li nga war a dugg la noo bëggati nag yow da nga bëri histoire lan la Abdou Karim dama koo leba leba leb ba sañutuma faa teg tànk wala ma jaar fa loo bëgg léegi nag ay koppar ma dem ma eh, xool bu ma fonto xool li ma amoon jënd naa ko ay bant yoru ma xaalis teel bang waa xool bu may mu fay wax yow damaa bëgg nga réglé waaye gëmal yàlla nit ku baax day gëm yàlla yow li nga yor ci alal tubaab fakkaala macha allah yow mënoo cee génnee départ jox ma ma toggal la ci ay mane ne bu ma xaali bu ma. ma ne dama lay xaali dama lay xaali yow gëmoo yàlla dama lay gëmoo yàlla. la la. ma ne yow li am sa morom yi am sa morom yi amuñu ko la wax. dama bëgg ma ne ah. ma ne sama jàmm li ngay nay. na ngeen di grève. waaw comme yéen grève ngeen di def. Eh. da nga wuy ma yow. Aminta. Ami yow laay wax. dañ maa dàq. dañ maa dàq parce que fayu ma deux mois ngi fayu ma école. seeteeteet. professeur Boubacar si moo goree di. weer wu nekk ma yónnee ko tànn muy dàq sama doom. ki xam na xam na ne mu def. seeteeteet. ma ne romb ni nga wax ak moom comme doo fay. wax ak yow dëgg dafa jot de. ceeb sama yaay. courant sama yaay ndox sama yaay saag bu baax sax mënuma ko am xoolal sama saag bi na nañu waxante dëgg mënoon naa di def comme samay morom ni ñuy def dem di taxawaalu ci mbedd bi pour jënd kaye wala big duma ko def foo ko ñàkkoon sax ñu ne da ka kaa ñàkk mais papa ñàkkoo ko. eh, eh dama lay xamañ de wax ji doy na ah. eh, eh papa yi ngay wax waaye eh ma ñaari weer ngi nii fayoo yow li lan la doom jandee jël ma ko jàppale ko ci yow li ba feebar la boo feebar la ngay faju mel ni kuy wax ak man boo feebar la ngay faju ji la eh, lu xew sa doom yaay bu ma wax maam benn bëj mënu woon a xaar rek ba noppi dama ne du ma xaar ba ngeen nopp wala ngeen teeral <laughs> ah, wax dëgg yàlla yow yow la yow kenn du ko wax yow yow la xamoon naa sa doom dinañ ko dàq dàqati ko neem jaay na ay yërëm pour doomam ana oto yi ana kër yi mu ma jaaxal bi waay waay dama la jur ci farte bi nga ne foo génn rek jën essence bi yokk ci sa ma waay bu ma wax maam benn ba ñax essence ak ànd embouteillage sama yoon nekku ci embouteillage hmm. sama yoon nekku ci embouteillage de billaahi yow su la juru woon tey yow daal xaw ma sax lu ma lay yaay bul wax loo kii bam bul bul ma sonal bum la sonal da tànga sa xol bi yow de xaw ma danga am xaw ma amuloo xam nga yor xaw ma yorloo wante dama ne gàcce dina la rey gàcce dina la rey de xaw ma sax laa koy waxati sama xol bi jeex na ma maa ngi bëgg yow yaay ñu dem baal ma kii yéen xam nga lu leen di yëg yow jóg ngeen leen dem ci loolu ah. nay bay bëgg a ya? ya, dee cim mere naa la ba ya ci kanam nay nga doo dugg àjjana bon bokk bu na taw ko la andax mom di dem xam nga liggéeyu ni sa kër baay mauvais Masha Allah, Masha Allah, Oustaz oustaz suñu artistes yi yal nañu yàlla leen fayal. amiin ah, ndax euh, xam nga lii ñii ay paracétamol lañu. dañuy dindi stress. waaw. defe naa li ñu joué am na solo. ay jàmbaar lañ te itam jàngale nañ jàngale bu am solo. te nii ñu ko tourné noonu la amee ci kër yi. kilifa yoo xam ni ñu ngi ci kër gi te duñ def seen devoir. te en général nag ñi koy def bu buñ génnee ci bitti lu ne la ñuy maye. mais ñooñu dañu sàmba alaar wala. sàmba alaar la kay. waaw génn nañ nay ñoom di dem. mais nekk gaynde mbedd mi nekk muusu kër gi. maal. <laughs> gaynde kër gi mbuusu mbedd mi. boo nekkee ci kër gi moom fas sa kanam. ku laaj nga ni aw ma. te boo génnee yaa na baax ñépp léeg-léeg nga gis koo xam ni dara du ko defal fameem te bu génnee xale bu am 18 ans lay dawal versement. maa la wax nii.